ñu ngi nii taxaw ndaanaan champion comme ni ma ko tàmm di waxee rek mooy Bou Siteu Bou Siteu c'est pas la première fois ñu taxaw seetsi woon naa ko seet si ko waat ko diggante mag magam muy guy gi nee naa lu jàmm jàmm ko gën te àdduna nit mooy juum mhm. yàlla rek moo dul juum bu xale la xol bu rafet la yor comme ni ko guy bi yoree guy gi nekk nit baax di magam yor xol bu rafet bu maa ngi lay nuyu di la ziar ma bàyyi la ak suñu mbokk internet yi tey nga rectifié rectifié lañ ñëw nga jéggul waat ñi nga xamante ne ñoo lay suivre tiktokeur yeeg ñëpp ñu la bëgg mere woon la ak erreur mënut a ñàkk lépp mhm. ñëwaat nga nekkaat ci sa mhm. ci sa yoonu bopp mhm. ñëpp bëggaat waaw maanaam xala rek dama juumoon rek waaw di jégalu senegal di jégalu xam nga àdduna daal waaw di wax na xalalaa laa mooy juum def naa loo xam te ne def naa ko mais du sama tayef quoi waaw di tuubaat ñëpp di jégalu képp koo xam te ni nekk si internet bi dégluwoon affaire yi ñaawlu ko waaw di wax na xale laa xam nga on a 24 ans kon xale tax xale mooy juum waaw di jégaluwaat Sénégal bi ñëpp ñëw di jégalu waaw di jégalu nag sama papa sama xarit guy gi maa ngi koy jégalu bu baax a baax a baax di sant Lat Diop bu baax dox na si tànku jàmm Paul suma doom yaay ak maag Lat maa ngi ñoroon liggéeyal Lat Diop si campagne yi moom tamit dox na si ay tànku yi ba affaire amee si guddi gi Lat Diop moom mii la yoon woon moog Omar kon maa ngi sant bu baax di nuyu DG bu wér a wér a wér ak Zal Oné dox nañ tànk yu rafet su mel ne Pape Mouma tamit moom aw ma fayam ak Dieye production waaw ñoom ñu woo nañ ma sonn si affaire yi xam nga waaw di leen sant bu baax Fallou Ndiaye moom su ma neexee sax du ko tudd yow Paul xam nga lu ma la wax waaw Fallou Ndiaye tamit dox si ay jéego yu rafet waaw suma papa la suma lépp la waaw mal attendre la woon rek waa mal mal attendre entendu waaw mal attendi waaw français mbër nekkuñ fi rek di revenir comprendre mais gars yi tamit euh, xam tuuti rek comme li nga ko waxee dafa am ñu la doon influencé nga yor sa benn nopp nee nga benn nopp moo la sonal. <laughs> non est rek nit xuloo ko du waxante lu ñaaw te yooyu amul sens te guy gi suma mag la suma grand la comme lu ma la wax rek waaw maanaam seytaana waxul dëgg waaye yàq na xel mm-hmm. mais bis ki tey maa si ginnaawam maa ngi si xam si lépp lu ma nekk ak si lépp lu may dugg dinaa ko woo ne ko grand frère lii ak lii fils de balle di sa xarit di sa mm-hmm. doomu ndey di sa mag mu war a bëri loolu xewee ci bësam mm-hmm. moom tamit soo amee loo koy wax lan nga wax waaw fils de balle lu ma koy wax rek muy di ko jégalu bu baax a baax di wax ni li fa am sax am na fa mais texul taxul signature bi yaaxul dara mooy comme lu ma wax lu waroon defaru moo loolu amaan sama diggante maa guy yàlla moo tuddoon ni open press Fils de Balla la am lu fay xew. ñu ñu defaru ñu àndaal ñu dund. waaw fa laay fa laay jiwaatee waaw. donte ñëpp meroon nañ nag ñëpp a meroon ñëpp a meroon Bou Siteu. comme li may wax rek nit mooy juum. Mhm. yàlla moo dul juum. dëgg tey def intention bi nga xamante ne am na fa mhm. ak fee comprendre ñëpp mere la ci ndax dañ ne mm. li tax ñu la guy gi sa morom sa mag la yow sa bopp nga ne boo xoolee commentaire yëpp da xam ne yow yaa tooñ buusi tamit ñëpp bëggoon buusi tamit ñëpp doon bëgg ñëpp di la clash waaw comme noonu la woon rek te parce que li indi affaire yi tamit xama te parce que pël man dama yàgg si làmb bëri dix combat xama ma am combat ñu ñu defara ma contrat ma war a dem Europe pare pare xama buusi ta maanaam war a teguwaat si yeneen niveau Bou Siteu war a teguwaat si yeneen niveau boo yi nga xam ne dañoo nekk sama ginnaaw di sonn ma yàqamti gaaw awu leen waaw da parce que pël man nekkuma fii bëgg topp làmb nii rek de 10 combats 7 victoire laa si am yàqamti naa gaaw affaire yi leer ma aw sama gars yi maanaam li Siteu di def man rêve boobu dafa nekk si man di jàppale ay booyam waaw di jàppale ñu doon sonn si moom barke Serigne Touba Balla Gaye dëgg na si bëre wala Gaston waaw te ah xoolal loolu ah. sànq Gaston woote na la Diop jox na lépp Balla Gaye le premier janvier. waaw ñu ñëw fii ba ñu ngi doon woo influenceurs yi nga xam ne ne ci réseaux sociaux yi. Mhm. ne Adamo suma xarit koo xam te ne ndeysaan. dañ ko woo. nit woo na ko ne ko ne ko booy kii ko xam rek xam nga Adamo moom mooy loolu suma waay la. mu bañ mu ne du si du si wax. parce que xam naa ne dañuy juboo maa guy waaw ak ku si mel ne kii Soko Soko no stress. <laughs> suma xarit ak Baara. maanaam ñoo ñi ma la wax ne dama leen di suivre. ak Fa Aydara man ñooñu dama leen a bëgg barke sëriñ tax déggantewu ma ak ñoom xamuma leen moo tax nit lu rafet la gar jaral kii quoi. Hmm. waaw waaw jaral sax. waaw maanaam guy gii kenn dootul duggal sama diggante man ak moom. barke sëriñ Tuubaa déggalu ma la moom fépp fu mu jëm man maa ngi si ginnaawam fu ma toog dégg guy gi mu ngi fa dinaa lépp lu ma yor ma yor oto ma yor moto lu ma yor naa ko taal fekk ko fa. barke se ànd moom waaw noonu la demee nag bu jëree ma war fas fekk fa sax dama koy def. barke se ne tooñ lu mu rëy rëy rëy baal ma moo ko ëpp hmm. moo ko sut tey lan ngay waxaat ñi nga xamante ne mooy suñu mbokk internet yi la mere woon am ñu ne tey grandeur bi nga am ba jéggalu xam ne yaa tooñ nga jéggalu tey ji ñëpp yaakaar naa baal nañ la. léegi loolu lan waaw li ma leen wax rek muy maanaam lii nekkul du dara gis nga nit boo juumee rek da ngay da ngay xam ne da yaa juum xam nga nga jég génn jéggalu jullit noonu ngay def man Paul li may wax ak yow nii waxtu du ma raw waxtu julli du ma raw man nit gënu ma rafet xool waaw maanaam lii nii dafa war c'est parce que guy gi suma ma mag la waaw heure la woon te dama dama war a dama ko war a jéego dama ko war a baalo buusa nekk koo xam te ne tamit moo si dox na si tànk yu rafet waaw moom maa ngi koy sant bu baax a baax a baax si geste bu rafet. buuse maa mais delloo ziar pël bu rafet. doomu géejawaay. waaw doomu ndey bu Siteu. waaw sama rakk la sama rakk la sama frère. Ah. Mhm. tey ngay dox tànku jàmm si diggante bu Siteu ñambaan euh, ki nga xamante ne mooy guy bi ñëpp apprécié loolu. kàddu yi ñu nekk li nga xamante ne moo la wax boo amee looy wax diggante ñoom ñett loolu ngeen waaw lii comme que da ñu bari ñu bari bëggoon nañ ko ay at mënuñu ko woon am. tey bu réussiree ci man damay sant yàlla jul ci yonent bi bu baax sant samay ñaari waajur <laughs> xaalim taa demal sa yoon baax na <laughs> yaa ngi dégg damay sant yàlla mais damay ñaan rek lii ñu def nii ci caméra yeeg yëpp mu nekk dëgg ndax fii yàgg nañ fi gis ay juboo yu bari après day mel ni mosuñu juboo guy gi na ñëw uuf ay magam ay rakam rakkam yi ñëw topp ci ginnaawam njambaal mi quatre ans waxula guy gi man maa ko fi indi tey Bou maa dem fekk ko mu toog ma ne ko di nga jóg seeti guy gi ñu déggal ma kon tey dañ koy dëggal te guy gi tey xam nga maa moom sax dañ naan suñu diggante neexul woon ak noonu na ni nit ñi di gis te jot moo amul waaye nañ xam ni rek àdduna mu solo lu rafet moo gën lu ñaaw waaw te guy gi mi ngi nii moom moo jiitu ci école Mor na na def ni Balla Gaye def Balla Gaye daa wàcc ci terrain bi dem xooli ay rakam boole leen jiital leen ku ci am combat mu demal la ku ci pare mu sargal la moom boo amee combat ñëpp taxaw ko mu am ndam kon tey guy gi na def noonu bu defee noonu day gën a am doole bañ a déglu seytaane yi ku ko wax dara rek mu gëm ko parce que ñun yéene bañ a benn nopp parce que fii moment ah, koo fi ku la fi koo àndal rek yàlla moo tax mu ànd ak yow mm. ñun guy gi ànd nañ dix ans ànd nañ fukki at laaj ko saa yu jëlee avance teguñ ci suñu bët fukki at li ànd ëpp na vingt ans musul jël avance ñu teg suñu bët wala mu jël avance ñu ne ko dañ ciy lekk wala mu jël avance yëkkati som jox ñu. Mm. sëkku ko ñun te dañoo ànd ak moom ci ngor ba keroog ñuy dem. di wuti leneen mu nekk ci yoonam parce que loolu mooy àdduna àdduna nit ki dangay ngay ànd ak moom te yàlla tax waaye doo ànd ak moom ngir alal wala dara léegi nag bu la nit yëgee da koy yëg bu la nit yëgul nag mooy indi yenn yenn yenn mbir yi. ku la safoo nga faale ko ku la safoo faale ko kon na safoo xale yi xale yi faale ko xale yi safoo ko mu faale leen ñu ànd ci jàmm parce que fii kenn mënul fi kenn dara waaw. giri. ah <laughs> tey la kii bi la tey la kii bu giri maa ngi lay wutal benn jasneer tey foog ma jox ko benn jasneer <laughs> sama xarit la de <laughs> man mooy sama mbër man mooy sama mbër. mooy sama mbër waaw. nga bu bëreetul rek waa géej waay bu bëreewul ak gaaje bu bëreewul booy yi. booy yi moo mën. comme ay Sa Thiès. non dama xayu lim ay booy Sa Thiès ak ay booy Ama ay booy yi bandi bandi ru nii ay booy ñaa ak booy yi yëpp booy xale yi yëpp. buñ daj ak Gris Bordeaux daj daj dëgg ndax Gris Bordeaux du ragal doole kese la ba pare c'est que ndaanaan la waaye super ndaanaan na ko daal daf maa napp wax jooju sax juróom koy gént mais Lamine Gris Bordeaux bi mu nee mais Balla mii dafa <laughs> nee na mais Balla mii dafa yëpp ay supporter ma mais Balla bi ma gisee doole ji ma mais Balla ma ne ko xaaral ma daw ma. dama koo bëgg de Gris c'est un champion nag waa Medina nañ xam ni champion mel ni Gris duñ ko am wala dina yéex Gris am na fit mën na xeex ñeme na loolu yombul ci la mbër Gris c'est un grand champion ndaanaan la man dama ko estimer dama ko gëm de parce que Serigne Bamba. nga ne Bou Siteu mooy dernière eh. moom moom way wi. kaay wuyu. ma ne ko bii mooy sa dernière bii mooy sa dernière saa saa. <laughs> eh Bou kaay wuyu. eh sa waay na démb lim la jël nee na démb lim jël leerul. lim jël waaw nee na son bi ñëw non dégg na loolu. Hmm. xam nga bu champion la xale la xam nga booy bi dafa am mbooloo. booy bi buy génn li muy génnee li koy génnee géejawaay bariwul léegi moo tax damay bëgg chaque jour. mu nekk ci yoon boo xam ne nit ñi dañ koy naw sikk ñëpp jàmm dama dem ci commissaire bi mu ne ma lanam nga ma ne ko sama rakk la laajal guy gée ngi toog nasa ngi toog mu ne ma loo leen bokk ma ne ko ndey ak baay parce que daw ma ci loolu parce que moom moo ma bëggal boppam respecte ma am fu ma teg kon fu mu taxaw dama fay taxaw noonu la demee sama rakk la te gaynde la kuy dem la waaw non wax naa ko la laa wax sax démb bu mooy kii bu giri bi rek. la laa la wax noonu laaj ko ko la la wax. bu giri bi dernière chance bi mooy sama dernière chance te yow xam nga ni moo loolu. ak Serigne Touba Mbacké waaw taj gin waaw bi mooy sa dernier bi mooy sa dernier chance ak Serigne Touba waaw sum naa ah. wo léegi nag yow eh, yow foo jëm wala ngay ànd ak booy yi Boucher jaajëf tàggatoo ah. la fi sa ah. baal kontaan na ci yow non man dew ma kan la fi sa baal daa am fu may